jamono gi ñu toll coowal vaccin yi lëmbee na Sénégal ba tax na ñenn ci askan wi yëkkati nañ ay kàddu jëmale si vaccin yooyu. ah vaccin yi de comme niñ ko état waxee rek ndax parce que waaw état nee na ñu vacciné wu ndax coronavirus bi ñoo ngi xool lim bi day gën a yokk vaccin bi moom d'accord nañ su dee loo xamante ne lu arrangé population bi la. vaccin corona bi moom baax na parce que sunu wér-gu-yaram moo tax gouvernement bi indi ko fi waaw moo tax gouvernement bi indi ko kon lu baax la ci yaram waaw bu ñëwee ku mu neex nga ñàkku ñakk say doom ndax lu baax la ci yaram daal waaw sa wet ga ñenn ci askan yi amuñu benn xel bu dal ci vaccin yooyee di ñu xamal ni it pare guñu ngir a vacciné wala vacciné seen i njaboot. non man ma wax ko dëgg neex yàlla vaccin yi moom rafetlu moo ko benn yoon. ndax vaccin yi wóorul luñ xamul luñ ci dugg. non non non non sama njaboot sax duñ vacciné wu. sama kër moom garaaw bu ñu bu dee corona nañu rey garaaw bëgg na. avant ñoo tëj aéroport bi vaccin dugg nañ fi vaccin lañ denc. pour mën a déclarer pour bu gars yi génnee ñu génne vaccin yooyu pikin ñu ko parce que vaccin yi nekkul benn vaccin de vaccin yu njëkk yi gisuñu ko ba léegi dégg dégg nañ ko mais gisuñu ko sikki saaka bi moom ñëpp la nguur gi moom instant bi nii moom ñun gëmatuñ leen li ñuy waxee li ñuy def nekkul benn coow vaccin yi ci Sénégal nekk na lu ñuy waxtaane fépp su ñuy gisee nii am na njariñ nga sa des am njàkkare bu rëy ba tax na nguuru senegal war a génn wax ak askan wi lu ñu mën a dégg